tey jii fii ci stade de Lat Dior ngir dabar ñeenti bal ci dara sa première impression ci match bi nga football tey. waaw bi déjà que ñu ngi doon xaar match bu a métti premier mhm. ñun ñu doon naan naari football ñu dafa métti. Mhm. parce que bi ñëpp xam nañ ne ak deuxième match mënu doon benn mhm. mais ak euh, solidarité bi nga xamante ne tey indi nañ ko fi wane nañ ko si match bi boole nañu. may ñëw may ñëw. boole nañu xol yi boole nañu ko si terrain bi aussi voilà moo tax mu yomb suñu ndam. yaakaaroon ni Sénégal fi ñu toll ci adduna ci wàllu football am na benn équipe boo xam ne da nga football moom muy difficile lu dul nga ñëw dàbbar ñu ko jaar si kawam jàll. waaw ñun ba tey lu ñu wax rek ñun dañ nekk jàng te defe naa ne ñu ngi koy wane que ñu dem si ay compétition yu mag tamit di di pour ñun niveau football féminin ñun ñu ngi koy daal te incha fu ñu koy yëkkati nii dañ koy gën a kaweel daal bu soobee yàlla. zéro benn ci classement Afrique ne liggéey bu mucc ayib la boo xam ne waa fédération def nañ ko. waaw alhamdulilah parce que liggéey bi moo moo waral loolu tey tey defe naa ni dañu gën a dañu gën a jox cër bi nga xamante ne tey ñun moom lañu moom lañu nga doxaale ànd ak sa gars yi. waaw te te defe naa ni tey loolu noonu moo ñu dimbale tey ba tey ñun ñu mën a ñëw ba tolluñu léegi huitième position xaw ma sixième position si si classement bi tey moom xale jigéen moom tey dañoo kontaan fexe nangu ko moom waaw may nañ ko ndam li victoire bi dafa neex trop moo tax yéen yéen a ngi ambiance waaw moo tax ñun ambiance nag parce que dañu am lu ñu mel suñu benn chose bokk suñu mu gaañu gaañu bu métti awa jaxate waaw li nga maa ko wax touché nii instant yi moo tax jubilé wuñ def ñu dara waaw yàlla ko yàlla may wér bu mu ñëwaat si message boo koy sànni moom moom yàlla ko yàlla may rek